waaw isam sagut fan xale jigéen yi koy yàq dara lu bari yëpp xam nga lan la xaw ma noonu def ñeneen ñi dem mais lu ma def laa ne wax mu ngi leer bi waa bi na bi c'est ok ok good ok comme day jaay xamadi moom mu ngi noonu ok fii xale bu jigéen bi day ne oustaz Modou Fall xale yi jigéen ñi xaw ma moom lu mu lay def mais man lu mu lu ma def lay raconter sama histoire déglul. xoolal oustaz Modou Fall man naa la ko mën a wax gis nga oustaz Modou Fall xale yi jigéen koy yàq dara lu bari yëpp xam nga lan la xaw ma noonu la def ñeneen ñi dem mais man ma def laa ne wax oustaz Modou Fall dafa am bis sama benn cousine euh, am gan. Într-un weekend, bun, vi cum loolu mu bëggoon ñëw sama kër ànd faat ganam bi parce que bi sëriñ la daal sëriñu daara sëriñu daara la te dafa waroon def ay conférence seen nag mu ñëw fa bi mu fa ñëwee même pas trente minutes rek muy wuy téléphone mais man man أساسا وضعها أنك t'amoureux agneau. C'est mon cousin Belette maintenant, mon arbre de fini aux jambes, le goût. Y a pas de souci. Ramena mu ñëw mu gis sama ma serve leen mu ne ma problème ma jox ko cër respecté ko bi ma ko nuyoo muy waaj kan bi woo ma ma ne ko ñaanalal kii parce que amul borom mu ne ah. ku mel ni yow moom borom kër baax na dinaa la ñaanal léegi jox ma sa numéro incha allah nga jël sama numéro nañ déggante ma ne ko d'accord ma jël numéro bi ma jëlee numéro ma jël sama numéro ma taal toujours lañ ci teg kenn message ma di ma woo France ma ne waa ma ne waa moom la ma ne ko ok mucho mucho oh. dama dindi kii bi parce que gars yi ñu ngi naan kali mu sedd ñëpp a ngi ma koy bindal te damay topp samay followers mais bu dul loolu oustaz Modou Fall xaw ma utaat Modou Fall dinañ ko wane ñoo ko gën a xamati mais yéen a gis commentaire yi ñëpp ñu ngi ma naan kali si tapale kali mu sedd kon faaw ma déggal leen ñoom. c'est juste rek pour wan leen ni ka xamadi jarul jaay kenn du ngeen toog di wan si télé ay oustaz ngeen bu ngeen demee gis benn xale bu jigéen si benn bërëb xale bu jigéen bi lu muy jot expliquer benn xaritam moo ko woo ne ko damay ay gan mu dem foofu fekk foofu Modou Fall ak beneen genre sëriñ nu mu toogee foofu xaritam bu jigéen bi ne ko ñaanalal kii amul jëkkër saay saay daal di ko ne ah yow jonga mu toll am amoo jëkkër jox ma sa numéro booy bi jox ko moom it mu bippé ko mu enregistré booy bi ñibbi këram saay toog néegam ak silet maam daal di jékki-jékki rek woo ko vidéo booy bi coupé mu ne ko c'est c'est Modou booy bi jël saay ak vidéo naan dam la bëgg xool ak kenn xamut commencé audio dafa gudd. ba jékki-jékki mu laaj booy fu mu dëkk booy boo saay taal otom dem foofu mais ñu bari dañ ma ñaan si sinon ma tegal leen lu bari kon nag xale yi ngeen mën a jaay réew mais du ñun suñu génération ngeen bu ngeen di jaay réew du ñun ngeen di koy jaay du ngeen seetaan sunu ay laay adduna yëpp di wax li jot a am ñëpp di ko naqarlu ngay génn naan ay ñoo tey noonu nga mën a waxee parce que genre boobu nga noonu nga mën a waxee parce que genre boobu nga bu doon oustaz dëggantaan njaay nga doo waxee noonu mais ñi lay suivre nante yëpp xam nañ ne des nga nekk original cent pour cent nit nag motul sama classe ki ñu ngi si lu leen neex mais ñun ñoddewuñu oustaz ay bandi lanu ay waga ay kacapan lanu dañuy def lu neex mais munoo ñoddi ne nga boo génnee si tele yi di naan yàlla da lay dumaak làq boo tourné fee di dem di def naka sudul noonu bu ngeen dara sama classe gi nag dañuy def lu ñu neex ñun la bu ñu yàlla di rey bu rey ñu bu ñu laq mu laq ñu ñun moom na bëtuuñ waaw wax dëgg fa mais bu ñu demee ba ne oustaz jàng ba yey téere yi dina diinaloog nga wala islamoloog nga am na yu la warut waaw moo tax seen kalaas gi ñun ëllëg yowmal xiyaam yàlla du ñu soxla parce que day ne ah ñii jàngunu ñii kalaasu kalifan bi mooy vagabond bi nekkoon ci adduna bi rek jàngunu mais yéen ñiy jàng ba yey alxuraan gi ngeen xam lu si yàlla wax te jëfewu leen yéen la ñuy soxla dooru ay are billahi te looloo bari senegal diine bi dañ koy wutee muunin diine bi si lañuy ñuy amee ay jasneer diine bi si lañuy amee seen koppati yi dóor rek kay ñun nag du ku ñuy gaaruwaale ñun kenn du ñu gaaruwaale ku ñu gaaruwaale ñu toog suñu réseau du ñu ruus kenn samay flow sax vraiment jox leen cër rek moo tax mais sinon di nga gis di nga di nga dégg ay audio te di nga gis ay image fii ak date beeg yépp duñu waxantu li ngeen nekk reculer leen si nekku leen ci dëgg bay booy yi ndaw ñooy ñëw ne nekku leen ci dëgg ngeen war a changer at seen comportement ngeen ne da jaay xamati ay ñoo tey ana soi-disant kilifa ne maa tey maa tey mu ngi noonu tey boo bëggee am loo dolli bisimilah balaa. waaw salaamaaleykum nuyoo wala sànq sax ndax maa ngi doon woon effet bi et tout euh, maa ngi nuyu man sànq gis na interview bi man franchement et que man ma waxoon démb rek ba ñuy wax on parlait pas parce que dañ leen di ngat wala dañoo soxor ci par rapport ak ñoom lu ñu am ji ko joxe mais ñun luñ doon jox luñ doon wax mooy que dañ doon lancer waale benn message euh, di leen xamal que ni euh, jëf yu ñu jëf du jëfu yoo xamante ne pour ay gàmm wala ay màggal que prochainement ñu xam ne tamit. Euh, lu day ne guddi yonent bi euh, sallallahu alayhi euh, dañ ko war a def ci anam bu rafet anam boo xamante ne tey ku ko gis day xam ne fii yàlla moo fa nekkoon mais franchement image yu ñu gis moom kenn du yàlla amu fa de parce que nag yàlla moom moo xool fu ko neex mu nekk fa mais lii moom euh, sori woon na màggal euh, màggal bésu yonent bi sori woon na jëf-jëf boo xamante ne noonu la ko alquran waxee noonu aussi la ko yàlla namee ci jaam yi encore une fois tonton Modou Fall nous on attend que ngeen génne ngeen demander pardon parce que ma gis naa ci internet ni ne am na benn euh, euh, association bu nekk Tivaouane bu porter plainte ki nga xamante ne mooy tonton Aziz on ne sait pas si c'est avéré ou pas mais euh, gis naa ko man sur YouTube tout à l'heure alors tey bu ñu demee ba ñi nga xamante ne dañoo nekk ci dëkk boobu noonu ñaawlu jëf bi nga xamante ne amoon na foofu noonu ci kër Aziz Sakamtuma ñoom ñu fa nekkoon en tant que ay responsable en tant que ay ay kilifa ñi nga xamante ne seeni njaboot dañ leen du suivre pour man waruñu taxaw daal naan ay ñoo tey wala kiw parce que waxu maa tey moom du euh, du waxu kilifa du waxu kilifa encore une fois on parlait pas pour ŋàññi kenn mais on parlait juste pour que beneen yoon mu bañ leen dalaat et que je pense que démb ñu fi nekkoon ñëpp ñu ci mel ne ay Xadija ñoom ñëpp ci lancé boobu noonu la ñu wax voilà donc euh, man moom ñaalu naa trop réponse am parce que j'attendais qu'il dise juste même bu fekkee ne xaritu Aziz Ndiaye parce que nee nañ dis-moi qui est ton ami et je te dirai ki tu donc moom tey am na nu muy waxee rek ñëpp dañ naan kon Aziz Ndiaye ñu muy fréquenté ñoom ñëpp nii lañ mel parce que il montre pas li nga xamante ne mooy euh, exemple bu positif ndax nit ki même bu lay may ay milliards bu wax jëgg euh, wax dëgg jotee wax ko dëgg ndaxte fii euh, ku deew ak sa bàmmeel te lépp loo wax nit pour lu ko neex bés di nga wéet ak sa bàmmeel euh, yow donc du nit boobu mooy ñëw pour pour assumer wala du nit boobu mooy ñëw pour. pour pour ne la carrément euh, àdduna mayoon naa la lii mayoon naa la lee te kër ak oto du dara ay matériel la rek doomu aadama moo ko mën a am mais moom mënuñu am donc nañ sàmmat suñu ngor daal quel soit alpha luy am tontokali ma bàyyi gars yi ñu ñu développé ba ci kanam incha allah. am na am na solo jarbaat ñu ngi lay bëgg saa tubaab Kali maa ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay siyaar bu wér a wér maa ngi siyaar ñi ci kaw maa ngi siyaar ñi ci suuf Kali musuma la ñaan mais tey moom dinaa la ñaan xam nga lu tax Kali kii ñoo jàkkaarloo am faas kër Italie dara jëy Cheikh Mountakha mi ma yaakaar àddina ak bu njëkk géej la doon dem muy jaay ay saak ak affaire yooyu ba ci yàgg muy addi fii ci dëkk bi di dem ci ay màggal mu du faal li ma lay wax ah. bu dee mi ngi lay seetaan dina xam lii ma lay wax nii man Sa Touba moom xam na bu baax man Moustapha laa tudd sant lay moom xam na mu baax ànd nañ ay fata sama téléphone bi ma yor Sénégal yoor naa ci ay fata biir Viapre la dëkk Viapre Janawa Italie daf doon dem géej muy jaay ay saaga yooyu quoi comprendre nga ñuy am fee ay màggal muy dem ci saali di at di saka defeef bañ ni ko suñ borom yóbboo TFM mais ci ci njëkk ak teranga quoi mooy dama ñëw pour ñaan la ci njëkk ak teraanga bind naan la doom nday baal mu sedd mm. mais dama lay ñaan ci njëkk ak teraanga parce que tey nit ku baax du tooñ ak fu mu mën di dem ci àddina ak lu muy addis rek nit ku baax du tooñ te nit bu la yàlla cëralee da nga xam yàlla da lay cëral cër bi la yàlla jox nga ngëpp ko sa loxo bañ a dépassé sa bopp parce que ñàkk war ma mi nga commencé ci tooñ di tooñ gis nga képp kuy tooñ ak daraja joo man di am képp kuy tooñ ak daraja joo man di am rek doos gor ko waa tey nag as gor day daw yaama tooñ internet bi kenn moomu ko parce que ki nga toog sa kër xas ko bu ko neexee toog këram tontu la kali yow xam nga li ma lay wax baax man xam naa li ci internet bi kon maanaam mu gudd ak mu gàtt nañu rafetal tey nit ku nekk li la arrangé rek ngay def li nga wax démb man yéeg naa fi démb wax nga ko xam nga kon avant ba set set xam nga li xew kon léegi tey ñoom bu ñu jëlee riposte kon. wax jooju tuddoo kenn kon ñoom waruñu la woon wax ni la waw na wala tooy na mais dama lay ñaan rek lillaahi wa rasul mooy audio yooyu noonu ngir yàlla jëmi yonent bi ñu bokk rek a yàlla mi ñu boole te dara dara du ñaaw rek baal mu sedd quoi d'accord maa ngi tuub te jégalu baax a baax parce que nag moom ma la quoi waay nga am droit dugg wax la lool